Mamadou Dione ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi euh, FM maa ngi leen di fay. nga bokk ci comité de suivi euh, foncier ak assistance aux populations euh, ñi ca Ndingler. oui en même temps victime victime voilà donc. Mhm. di ñu wax nan nga nan amee ay yàqu-yàqu ci mbir mi waaye avant ça. tey mhm. fu mbir mi toll ca Ndingler. maa ngi lay jaajëfal ci ci invitation bi. Mhm. di rafetlu aussi sa taxawaay ngir euh, si ci côté population Dengaleer yi euh, pour ñu waat sa question rek mbir fu mu toll tey mooy population Dengaleer ci ci la nekk mm-hmm. parce que daaw euh, kenn umpalewul que ni le ministre Aly Ngouille Ndiaye mm-hmm. jëloon na arrêté pour que paysans yi dellu seen tool yi mm-hmm. buñ ko defee ñu ba nawet bi génn beneen nawet di donc il est temps de préparer le euh, les champs. waaw bi ñu fa demee euh, ñu fekk fa ouvrier Babacar yi mu xam ay ay jàppante ba ñu si gaañu. Mhm. léegi ci la préfet jël arrêt préfet du Mbour muy mortalité. Mhm. suspendre parti boo xam ne moo nekk en conflit diggante Babacar ak Ndingler muy quatre vingt hectares yi depuis mu ko suspendre ba léegi population Ndingler mënuñ dem seen tool mënuñoo am ni préfet mënu leen recevoir. amul benn interlocuteur boo xam ne autorité la boo xam ne mën na dem ci moom ngir mën a béy seen préparer préparer seen nawet donc en résumé daal fu ñu toll tey mooy population Ndingler ñu ci guddi boo xam ne bët setagul xamuñu ndax dinañ béy tey seen tool yi wala ren ko béy wala duñ ko béy. foofu lañ toll amu leen yaakaar ci mbéyum atum ren ndax dina am wala du am. no très franchement déedéet parce que ñun ñun ay ay sénégalais lañ. Mhm. te bépp décision boo xam ne euh, état du Sénégal jël na ko. dañu jàpp ka ni en tant que citoyen dañ ko war mhm. ci instance boobu ci lañ toll mais respect bi dafa dem ba xam ne dafa ne dafa ñu nar a gaañ quoi. waaye dañu respecté décision état ba décision état bëgg ñëw gaañ parce que def ne da koy réglé waaye ba léegi réglé wul dara quoi. kon yéen booba ba tey amul dara lu ci soppeeku amul ay waxtaan yi nga xam ne sumb nañ ko mu am euh, évolution ci dossier bi. benn benn benn waxtaan amu ci madame. benn waxtaan amu ci déglu ngeen nekk ba tey. déglu boo xam ne du lu jeex la préfet nee na moo ñuy moo ñuy woo dinañu dalal moo suspendre terre yi waaye ba léegi nii préfet même chef de village bu ko wooyee soit du ko jot soit bu ko jotee da koy ne yow chef de village li rek réclamé mooy suuf si sa suuf la ci ci loolu nga taxaw noonu mënul tax ma recevoir la kon daal yéen ay calmant rek lañ joxoon. non weesu na calmant lii lii est-ce que c'est c'est pas mortel même lii kay du calmant lii kay c'est plus qu'un calmant c'est quelque chose boo xam ne c'est ça ne nous sert pas ça ne nous sert pas ça euh, franchement baaxul daal. kon da nga bëgg ne Ndingler activité principale mooy mbay mi euh, te atum ren euh, boo mayul population bi li nga xam ne moom la ñu gën a xam euh, di ko jëfe duñ ko def. buñ ko dee def it xam naa dinañ loru lool lool def beneen du ko def lool lool lool lool parce que madame. Hmm. gis nga daaw nawet nu meloon. dafa taxoon ñun buñ béyee noonu ci suuf soot noonu suuf si en question. Hmm. wax dëgg si yàlla nawet bi baaxoon na lool lool lool lool lool lool ba lool ku ko gis tey nga xam ne lii déwén dañ la ko xañ sa yaram dina daw lool di nga am jàqare quoi nan ngay def ba dund sa njaboot. tey jii monsieur monsieur Dione bu ñu delluwaatoon mhm. ci problème bi dëgg-dëgg nan la demee que ñu ngi ciy dégg ay tur yu bëri ñu ngi ciy dégg waa Dougar di ci dégg waa Ndengler di ci dégg euh, Babacar mii ngeen xam ne yéen a ngi koy joxoñ baaraam tuuma nu mu demee exactement. non problème mu Ndengler madame Seye euh, je crois que dem ci ñëwaat rek yàgg dañ cee wax. Mhm. mooy suuf sa loo xam ne dafa nekk diggante population yu Ndingler ak yu Jilax mooy fu ñu digaloo diggante Ndingler ak Jilax naka jëkk dañ daan bay di daje seen tool yi da ngay gis tool yi toolu Jilax day dem côté bële toolu Jilax Ndingler dem côté bële affaire yi jaxasoo quoi c'est-à-dire que yi day nekkul ci jàmm nekk ci situation boo xam ne ku ne da nga respecté sa morom ku ne xam kii sa mbokk sa mbokk la ñu liggéey ci loolu. kon daal délimité wu ñu suufu Jilax ak suufu Ndengeleer. délimité wu ñu ko bokk nañu seen suuf di jëflante di defa euh, defante comme ni ko ni ñu koy nemmeekoo ci village yu bëri. mais madame man xam man xale la waaye euh, nee nañ ma. Mm-hmm. Ndengeleer ak Jilax. Mm-hmm. ñoo bokkoon même canton. ñaari village yu bokk ay suuf nan ñoo koy séddale nooy def ba séddale ko. d'accord léegi. xam nga kon délimitation mënu fa nekk. léegi nan la coow li ñëwee. léegi coow li. ñun daal ñoo jékki-jékki benn jour ma daw euh, babakar ñëw ne ñu dañ ma dagal suuf ci seen euh, dañ ma dagal suuf te da ci am partie boo xam ne muy quatre-vingts hectares da bokk ci suufu Ndingler mm-hmm. léegi man mu ñëwoon ngir waxtaan ak yéen nu ñuy def ba liggéey ànd dégg yàpp naa ni li ci Baye Ablaye waxoon ñëpp dégg nañ ko mooy Babacar sa 4 bii nga indi tey su ma la ko laajoon doo nangu kon yow daal demal ci sa li nga moom man ma dem ma suuf ma kon ne béy ñu toog ñu toog toog cinq ans après Babacar ñëwaat indi titre foncier jékki-jékki gis ay soldats ci ci àll bi. kon daal ñu ne Babacar am na titre foncier ci yoon boo nee cinq ans après maanaam bañ leen joxe information boobu yàgg na. non yàgg na c'est-à-dire Babacar muy ñëw ci ci ci suuf si en ci ci Ndengler en 2014. d'accord en 2014 te yow madame euh, boo ñëwee ci suuf en a 2010 nga ñëw génne titre foncier te 2014 amoon suuf si kon titre foncier boobu leerul leerul parce que nga ñëw ñaan si suufam moom nga ñëw indil titre foncier ci suufam nga ne maa ko par force ah loolu jaay doole fa la mën a yem mais yéen ba ngeen di waxtaan kan moo ko jaay suuf si fu mu jëndee suuf si. fu mu jëlee suuf si mooy euh, commune uh, ji commune uh, commune Sindia xam nga si Jilax ci Sindia la bokk. voilà waa kon ay démarche am ay démarche am ko mënee fële ca ca Sindia. Mhm. parce que amuloon yaakaar bu ñëwee côté Ndiaganiao Ndegeleer ci xam nga Ndiaganiao Ndegeleer Ndiaganiao la bokk. d'accord amul woon yaakaar bu defee confrontation uh, Sindia ak Ndiaganiao amul woon yaakaar ci ñun léegi il mu contourner dem Sindia gaa yi ko benn délibération. loolu la sur bu am boo xam ne Ndingler yëgul Ndiaganiao yëgul. mais Djilakh yëg nañ. Djilakh forcément parce que bon bon Djilakh ne Djilakh yëpp yëg nañ mais peut-être am na ñoo xam ne waxtaan ak ñoom. ba ñuy bokk ci complot bi def lii tey. d'accord loolu du ñàkk. léegi man lu tax may insister ci loolu mooy dama bëggoon a xam yéen lan moo tax tey ngeen ne seen suuf la alors que sànq yaa ngi ma naan mënoo délimiter euh, tey jii suufu Ndingler ak suufu Djilakh. lu tax suñu suuf la. Uh-huh. xam nga madame euh, Aïta. Mm-hmm. ci suñu maam yi. Mm-hmm. dañ daan dëkk mais su bekkoor ñëwee. Mm-hmm. Euh, dañuy soxla ndox. dëgg la. ñoom suuf si instant yi fu mu nekk nii nii nii mooy suñu àll boobu fu mu nekk. Mm-hmm. foofu dafa dëgër dañ doon benn instant mu am benn benn bekkoor bu xaw a am. dëkk bu dëkk bu fa nekkoon muy Ndingler. ñu déplacé kër yi yóbbu ko feneen foo xam ne mën nañ fa am mën nañ mën nañ ndox mhm. léegi loolu moo taxoon gars yi déplacé wu dem ci ci beneen partie boo xam ne mën nañ fa exploité ndox ñu gas fa am fa ndox en même temps en même temps mhm. ñu dëkkoon mhm. ñu continuer di dem di exploité yi en même temps les champs n'ont jamais été abandonnés kenn musul bàyyi suuf si lool dama bëgg mu leer précision je veux que loolu mu leer d'accord dañu déplacé wu dem feneen ngir am ndox en même temps di dox di dem di béy suuf si en question mosuñu ko bàyyi ça je veux dama bëgg mu leer quoi mm-hmm. waaw. d'accord léegi loolu mooy bi quoi. a ngi xaar préfet mais ñagas-ñagas euh, am na seen diggante ak waa Jilax ñi nga xam ne ay dëkkandoo ngeen ndax tey jii problème bi euh, lijjanti ngeen ko seen biir wala ba tey euh, ñoo ngi nemmeeku li nga xam ne mooy xëccoo gi am moon ca ndoxteelu problème bi. gis nga madame. Mm-hmm. man dama jàpp que Dengler ak Jilax musuñu am problème te du ñu problème ci lii. et pourtant am na ñaari comité ñi jóge fii ñi jóge fii. Euh, dama jàpp waaw dama jàpp. Il mm-hmm. y a une minorité qui est utilisée qui est par Babacar. Mm. pour gëmloo nit ñi que ni am na benn parti ji la buy réclamer légitimité ci suuf si. d'accord kon bu ma la déggee. ji la yëpp adhéré euh, ci li nga xam ne moom la Babacar def foofu ca Ndingler. en tout cas ce qui est sûr madame mooy j'insiste sur ça. man mi wax ak yow am naa ay mbokku jiila mhm. te bi lii xew ba léegi gisuma ñagas ñagas sama diggante mbokku waa jiila maintenant quant à keneen ku jógee fële xaw ma jiila nga dëkk xaw ma dëkkoo jiila mais képp koo xam ne da ngay soutenir Babacar man je vois pas comme quel koo xam ne jiila la dëkk dama ko jàppee koo xam ne dafa bokk ci Babacar et day sauvegarder ay intérêt mais diggante population Ndingler ak Djilakh depuis les nuits des temps mosu ñu am problème te du yaakaar naa du lii moo tax ñu problème ça je peux le garantir. nawet bi egsi na bépp béykat bi nga xam ne euh, fas yéene nga liggéey ci nawet bi tàmbali nga yéen ba tey yéen a ngi xaar fe ndax dafa am lu ngeen dëgmal euh, en tant que comité euh, pour mën a jot ci suuf si wala ba tey ci déglu gi ngeen di. en tout cas ñun la la lutte ne s'arrête pas chaque jour que je ñuy xool des pour. mën a exploiter suuf si comme auparavant. Mhm. du ñu toog mukk nag du ñu mos a toog tant que suuf si delluwul suñu loxo de façon légale et légitime du ñu mos a toog. ñu bëggoon a xam profiter ci occasion bi pour xam jafe-jafe nga xam ne euh, moom la Ndingler di dund euh, jamono ji bu weesoo euh, problème bi nga xam ne yëkkati nañ ko. dinaa la jaajëfal ci lool lool lool lool madame xam hmm. dama jàpp doomu adam boo defalul boo defalul. Hmm. da nga koy bàyyi ak li mu yor gis nga tey tey boo doon dem Ndingler tey mhm. euh, da ngay jël euh, jóge Sandiara par exemple mhm. nga jël ranran bi da ngay dem dem dem fa ba commune Sandiara fu mu yem mhm. ranran fa la jeexee c'est-à-dire que Ndingler amul yoon boo xam ne mën na fa mën la fa yóbbu ci lu yomb. donc pas de route bitumée. non yaa ngi comprendre bu baax sax c'est que yaa ngi baax. mooy le programme de PUDC. moom moo doon defar ay piste rurale mhm. mais ñun dañu remarqué et très malheureusement que dañ ko commencé def ko def ko ba commune Sandiara jeex mhm. commune Ndiaganiao fu mu commencé dugg ci Ndingler foofu amul dara xam nga dëkk ne amul piste rurale mhm. kooku mënoo xam mënoo xaar courant amul courant dara c'est comme si ñun on était en no man's land zone Sandok zone Ndiaganiao partie bu ci ëpp amul dara dara amul doo sentir sax état du Sénégal présence am ci loolu noonu moo la benn affaire. Hmm. mooy Ndingler am na benn partenaire tubaab bu fa ñëwoon. Hmm. Euh, ñu naan association cœur et mains ñu tabax fa benn poste santé. Hmm. poste santé bi su ma waxee mat na presque dix ans on a fait toutes les démarches pour ñu mën a am benn sage-femme wala benn infirmier bu fa nekk en poste santé qui équipé lépp loo xam ne def nañ ko ci démarche pour ñu am benn euh, benn benn infirmier wala benn sage-femme mun ñu ko am. kon yéen fu ngeen di fajoo. on est obligé. da si déplacé dem benn poste naan njaaraw te même poste boobu boo fa demoon tey madame. Mhm. sa yaram dina daw quoi. ñaata kilomètres la à peu près bu ngeen amee urgence et tout. bu ñu amee urgence ça fait au trois entre trois et quatre kilomètres. tey comme nee nga yi baaxul euh, supposons par exemple ñu nekk toujours ci domaine santé ñu doon évacuer malade luñ koy yóbboo. saret madame saret madame comme si depuis cinquante ans derrière luñ doon def moom ñuy def tey te je profite de l'occasion pour gis nga tey madame boo dëkkee zone Sandock mhm. nga bëgg a dem Mbour par exemple les moyens de déplacement yu doon utiliser depuis cinquante ans muy charrette mhm. takkee ko Sénégalais wala takkee ko euh, Njaara wala takkee ko Euh, Casamance wala takkee ko ci ci dëkk yooyu boo ko sandoo mm-hmm. da ngay jël saret les mêmes moyens depuis cinquante ans ce sont les mêmes moyens moom lañu utiliser tey pour déplacer wu. kon ci xayma bu ma la déggee Ndingler leer amul ndox amul poste de santé amul tali mbaa am. Euh, am na ndox am na ndox waaw am na ndox. amul amul courant amul courant. amul courant euh, amul poste de santé amul tali. amul benn infrastructure boo xam ne état moo ko def <laughs> Ndingler leer amul kii John Sandock. d'accord mu te Ndingler ci la bokk. ñu lay jaajëfal bu baax di fàttali auditeurs yi ne bokk na ci comité de suivi foncier et d' assistance aux populations euh, ñi nga xam ne ñooy xeex euh, la xew ca Ndingler